président de la commission Cheikh Ahmed Tidiane pour la discussion des cartes joxe ñuy carte la Lamine Soli secrétaire municipal lu maire bi mais di jàppale sur le plan administratif commission administrative bi nga xam Cheikh Tidiane Gueye moo waaw carte yi nag bi mu fi ñëwee ba constaté que depuis euh, presque une semaine dafa am une forte affluence dafa am nit aussi ñëw ku ci cette sa carte alors que commission bi nekk na fi deux mois. Euh, chaque jour bu ñu joxee discard ci la yem loolu mu metti commission bi sax jot nañ fi sax wër tuuti def tuuti itinérance dem ci yenn gox yi nga xam ne centre de yi fa la nekk pour xool naka la ñuy mën a joxe carte yi ñi nga xam ne ñoo fa dëkk malheureusement même chose la léegi nag biñ ne carte yi dañ ko war a delloo samedi ci guddi gis nga léegi ñëpp daw nañu ñëw pour jël seen carte moom moo waral affluence bu métti bi depuis une semaine soo xoolee ay 300 cartes loolu moom mooy wane que ne carte yi def fi nekkoon rek di nelaw seen borom ñu koy soog a xëy na am euh, pass ñu jël vraiment waaw ñu leen ñaan rek parce que carte yi moom dañ koy delloo suba incha allah dañ koy delloo préfecture euh, te comme bu delloo préfecture day gën a metti pour ñu jël ko donc kon képp koo xam ni rek sa carte mi ngi nekk fii en latence ñu ngi lay ñaan nga def effort pour ñëw jël si ko incha allah fii ak suba. lépp loo mën rek nga def ko parce que commission bi dañu war a wàcc à 16h mais dañu dem ba 18h 19h pour rek pour dimbale leen te dara obligé wuñu nag pour ñu def ko. ah yaakaaruma ko yaakaaruma ko parce que am na ci ay cartes yoo xam ne nii depuis 2021 la seen i borom 2021 la woon ba léegi jël si wuñ ko carte yaa ngi fi moo féete boole bële yu bees yi nag moom mi ngi dem mais yi nga xam ne yàgg na fi moom seen i borom ñëwuñ jël si ko yooyu tamit ba voilà. Euh, liñ ci mën a joxe daal dinañ ko joxe incha allah rabbi pour di joxe carte yi dafay jafe parce que ñëpp fay daje parce que dañuy dajalewaat carte yi nekk ci bi yëpp dalawaat ko foofu day gën a métti xam nga bii benn commission rek la da préfecture bu dajalewaatee carte yi nekk ci yëpp dajale ko foofu nit ñëpp ku nekk war a jóge fenn ñi jóge Kër Massar Sud ñi Kër Massar Nord ñi yëmbal ñi Malika ñi feneen feneen bu ñu bëggee daje foofu bu jël carte day day day métti ba ci jour élection a joxe carte waaw loolu loolu moom euh, principe bu loi la mais préfecture nag moo koy joxe parce que administration moom dootuñu ko joxe parce que fii day nekk bureau de vote comme fii bureau de vote la doo fi mën a nekk di joxe ay carte euh, comme niñ ko faral di joxe rek chaque at chaque fois bu amee élection nit ñi dañuy ñëw bindu bindu en masse mais bind bi buñ ko defee ba pare après bu nekk carte yi ñu koy joxe ku ci nekk da ngay wax da say soxla ngay doxi léegi nag da dem ba toog ne rek gis ne affaire bi jàmp na ci yow rek ñëpp jógadoo loolu nit ñi ñoo ko war a baax xam ne ni que parce que carte yi léegi li ci am solo moom mooy carte d'identité bi ak carte électeur bi ñoo bokk yow sa carte d'identité mënoo ko defar ba pare bàyyi nit euh, ñoo xam mais daal ñu ngi leen important que nit yore carte d'identité bi yore carte électeur mu fekk dafa war a voter mu mën a voter waaw nga yore sa carte d'identité pour au moins parce que dara dëkk bi xam nga ak sécurité bi donc yor sa carte d'identité dafa gën a wóor donc vraiment ñuy ñaax ñëpp muy xale muy mag jigéen góor ñëpp rek ku ci am sa carte d'identité fii te jëla ko nga def effort ñëw ñu set ko gisee la ko bu ñu ko gisulee am na benn numéro vert bu ñu bind fii nga xam ne dañ ci woote nga xam ne nii dañ lay wax exactement carte ci ban centre de la nekk ban bureau de vote nga war a wote loolu yëpp gars yi yombalal nañ ko pour joxe ko macha allah nañ ci góor gi nit ñi jàpp rek. maa ngi tudd Jean Claude fii Kër Massar Unité 5 waaw ma ñëwoon fii sama centre de vote pour récupérer sama électeur waaw dernier moment bi parfois boo gisee lu tax loolu comme ñun fi lañ dëkk dañuy bàyyi ñi nga xamante ni dañ doon def transfert ak ñi nga xamante ni dañ doon voté seen dëkk bëgg a def ay transfert ñooñu seen i cas day métti boo ñëwee rangandoog ñoom dañu yàgg fi am na ñoo xam ne nag dañuy teel a récupérer seen i carte dem voté jee seen dëkk léegi dañuy ñëw comme centre bi c'est tout est transparent ñoom dañ lay régleel sa lépp nga daal di dem comme ñun ñi nga xam ne xam nañ fii lañ dëkk dañuy bàyyi ba dernier moment nga xam ne ñii dem dëkk ba jël nañ seen i carte ba pare ñu ñëw daal noonu la demee sax ñoom def nañ communiqué affaire yi amul par parloo def nañ communiqué def nañ ay campagne de sensibilisation jël nañ ay oto teg ci ay baaful di wër ci biti di wax ñun dégg nañ leen waaw amul fii nag moom wax dëgg fa yàlla ñun ñuy faral Sonko ak ñuy faral Amadou Ba ñëpp ci yam ak keneen ak keneen Anta Babacar ak ñeneen ak ñeneen ñoo ci bokk yam képp ku ci nekk si ñun da ngay ñëw rang bi normal la gendarme yi ñoo fi taxaw ñoo lay bind nga topp sa rang ñu rappel la nga dugg récupérer sa carte ñun daal ñun ñoo choisir toog ba dernier moment nga xam ne rang bi du métti ndax dañuy liggéey moo tax quoi. waaw carte d'identité ci préfecture bi moom du yoon parce que préfecture bi parfois nga fekk fa ñoo xam ne répartition carte d'identité yi duñ ko xam. même départemental bi tamit la même chose tamit da ngay ñëw nga sant Mendy comme man ñuy wër sa carte fu ne léegi le temps que ñuy wër sa carte d'identité balaa ñuy gis sa carte yow mën nga ñëw sax ñu ne la nekku fa mu ngi ci beneen centre nga demat ci centre boobu daa di rang loolu rek mun na mun na la def loo non votant risque boobu tamit ñun ñii tamit ñun ñoo ko teg mais pas état bi ñun ñoo ñun ñoo fi bàyyi tamit suñu bopp ci benn côté bi. waa droit la tout citoyen mais tamit droit la tamit à tout citoyen boo xamee ni sa carte mu ngi fii bougé wut yow am nga droit tamit ne man mun naa bàyyi bañ ne suba la nga daal dem jëli ko comme lu ma la wax si début bi ñun ñoo am habitude di jël si heure boobu carte d'identité yi dernier moment. waaw jikkoy sénégalais rek xam nga ñun ay sénégalais lañ te et puis dëkk bi dafa métti comme nu ko ñëpp di ko waxee dëkk bi dafa métti gars yi dañuy nekk si xëy yeeg yooyu mooy tax du ñu am temps moo tax ñuy bàyyi ba dernier moment bu ne kott ne jonj ñu doog a di daw si daal di taxaw. Ah, impact bu mun a am ci ñun mooy que ñun am nañ ñu nga xamante ni seen seen seen seen seen seen seen lu ñu présenté maanaam seen lu ñu présenté comme loolu lañ bëgg a diriger dëkk bi neex nañu ba ñu waroon leen votel moo tax nag ñun ñu daal di bàyyi suñu yitte pour ñëw jël suñu carte d'identité bu ñu jëlulee suñu carte d'identité te kooku noonu ñun ñu àndal jëlul réew mi wax dëgg fa yàlla du ñu am luñ neex du ñu am luñ neex impact boobu moom ngay am maanaam cinq ans ngay toog di regretter ki fi nekk lim lay diriger te neexu la.